salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com comme ni ngeen ko xamee woon rek man ak Babacar ñu war leen présenter benn émission bu bees tey nag Lamine moo koy def comme Babacar nekk fi ma teewal ko fi ba beneen yoon ñun ñaar ñu seeq ko seen affiche nag la émission bi tudd ma war cee dalal ay gan ay mbër yoo xamante ne yaakaar nañ war nañoo mën a bëri seen biir mais du yem ci ay mbër kese bëgg nañ cee boole amateur yi bëgg nañ cee boole promoteurs yi waaye nag tey ñi ma ko seqal mooy Adama Diouf moo nekk sama droite nii wulli bi xew ci jamono ak liiru jaan ci kan laa war a njëkk ne kan moo gën a nekk xale wulli maa ngi lay nuyu euh, bisimilah lan maa lay nuyu sant yàlla sama xarit euh, di du Seydina Mohamed sant sama ñaari waajur sant supporters yi ak fans club wulli yi nekk ci Sénégal ak bitim réew ñëpp maa ngi di gërëm di gërëm yow sama rak di gërëm wàllu TV patron mu tudd Ibrahima Faye maa ngi koy gërëm di gërëm képp kuy seetaan Lutte TV. Lirou ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa leen di fay Lamine Lamzo di nuyu Adama Diouf di nuyu Wulli di nuyu sunu caméraman yi Ibrahima at Bas di nuyu sama doomu ndey sama xarit sama wóolare muy Dieye production. at Modou Mbacke baax yaay Couture samay doomu ndey la ndax ñooñu ñoom ñoo yor lépp liiru jaan fi mu ne lu may def nag fi ne il faut ma nuyu leen ndax ku ne xam na ko ak man mooy sama lépp maa leen nuyu te émission bi nag xam naa tey du yomb ndax li ma fi gis tey <laughs> li ma fi gis fii xuma seen affiche la xuma waaye li ma gis fii tey moom bari na de ndax liñ ci war a wax daa bari nag. waaw ah. Arma ñu ngi maa ngi leen di nuyu gannaaw ma sant yàlla julli si yoon bi maa ngi gërëm ñëpp di leen nuyu di nuyu aw Lamine di nuyu ñoom Babacar. ñi nga xam ne nekkuñu fi sax di nuyu Mouhamed di nuyu maam koor góorgóorlu production mooy suma doomu ndey moom a gunge si te mu doon tëgg lambu dimanche passé di nuyu suma papa di nuyu suma yaay di nuyu Adama Ndour écrima di nuyu Pierre Ipen suma entraîneur Birama Thiaré di nuyu Ablaye Diop spécial production di nuyu Mbayang Fall ak Angel Fall di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu suma papa Ablaye Ndour ndax ku ma jàppale la di nuyu ñëpp xam naa dañu ñu bari mais ñooñu il faut ma nuyu leen ndax xam naa fuñ ma feetoo te waaw kii émission bi nag émission bu nar a neex la na doon seen affiche waaw vraiment ñu njëkkee ko nag te xam naa nag comme ñu ñoo ko njëkkee dina law. Lamine est-ce que lu mu la waxut gis nga euh, grand combat bi seen TV man maa ko ubbi bilaay walaay man maa ko ubbi maag jëm teyre man la jëkk a invité grand combat kon man yaa maa ngi ñaan yàlla. seen émission bi seen affiche dem bëre sax gala combat. ma ma boole waale ci ñaari mbër yi nga xamante ne kan mooy mbëru askan bi ci yéen ñaar Adama yow kii. loolu jar sa laaj xam nga ne man maay mbëru askan mi man liiru jaan rek <laughs> xam nga ne maay mbëru askan wi kooku jar du mbëru askan wi yem bi man jospora uh, bi maay seen mbër bu jospora bi waxuma askan wi rek. ak diaspora bi. Adama ah, Sénégal yëpp koo wax mu ne la Adama Diouf su nekkee mbëru xaaral ci bëri simple loolu nekkee mbëru waaye bëri dóor damaa ci mbëru askan wi. man nag damaa xëccoowul dara ndax. xam nga man damay xëccoo dama dul wax man damay xëccoo man damay xëccoo li may jëf dañ koy gis bi utal ma ci tur loolu man moom buru askan bi def dama li may def dama koy jëf ba bi non non li mu def dama koy jëf moo tax man tam li may def dama koy jëf waaw damay jëf waaw loolu dëgg la sax mais xam nga aussi bi ngay wa di nga bi ngay wax ñun dañuy waxtaan te Sénégal yëpp ñoo ñuy déglu eh, mën nañoo waxtaan waxante dëgg eh, mayante cel aussi xam nga aussi werante wuñu sax gaamee wuyu ma Adama bu fekkente ne boo waxee du ma la déglu waxtaan non déglu ma dañ wax non li mu nee mayante cër fii kenn manqué fu respect kenn ñun dañuy waxtaan rek du dëgg ok man du ma nangu mu nekk mbëru mboolu askan bi daal journaliste yi ñoo ma njëkk a tuddee askan bi ba Malick Thiandoum ne Adama Diouf mboro askan bi kenn dootu ko naatable léegi fu may doxati si mbedd bi sax Adama Diouf mboro askan bi rek may woowee te pour ma nekk mboolu askan bi sax loolu jar taw dañ fu ñu toog fii nii rek taximaan yi romb rek borom moto yi romb ak. fii de ñu wax léegi nga xam lu ma jaaxal Adama fu ñu toog fii ñëpp moom lañu talal loxo di ko nuyu rek te nuyuwuñu kenn di nuyu kii nag suma doomu ndey bi aussi di nuyu moom ndax nuyu ma ko xëy na wax moo neexul ndax war naa na nuyu vraiment ñu baax lañu ñu bëggal as askan ki lañu kii nii aussi kii sax moom taxul miin naa ko ci lamb ji nii mais kii moom vraiment miin naa ko xam naa ko xam naa ko sax Kër maak fay moom xam na li may wax bu baax vraiment di la wax ne nag lam moom amul découragé daanu nga keroog mais dangay liggéey wax rek boo liggéeyaatee mën nga am leneen yoon moom léeg nga topp ko mu naqari lool. mais liiru jaan bi daa mel ni dafa ñëw pour buuxante marché nag aussi balaa neex am buuxante mais am naa yaakaar ne ah. ñaar seen combat laa bëgg mu taxaw am na keneen tamit koo xamante waroon na fee teew muy big pato moom ak combat ak ñëpp nga wax instant bii nii waaye mu juri ñëw waaw la man damay gars yi aussi seen patron man aussi dama nuyu sama patron Aziz Ndiaye mbay boos mi nga xam ne moom solal li mbay boos Kër Massar yow sam li nga sol mbay boos la ko jox suñu xarit <laughs> yow mbay boos la solal solal ma daam joob grand frère la maa ngi koy gërëm mm, Bassata Ala Ndiaye aussi maa ngi koy gërëm big pato war naa ñëwul defum non wax naa ko ko xam nga xam nga big pato lam ni wax naa ko ko maa ko mën de mais ni may daanu mu foog ne nooy neex laa wax naa ko billa du ma nooy neex de neex dafa daw waaye combat bi taxaw na parce que jamaykee ngi ñëw léegi jamaykee ngi ñëw fii pour wax ñëpp ne sama ko ak Big taxaw na ci mois octobre grand ko def di gërëm di gërëm suñu papap teer ba <laughs> wax naa ko jamaykee naa ko teer mun ma ko wax mais moom nee ma dee ko sant waaw mais benn affaire dama jaaxal yow sa combat ak Lirou Diane mooy mooy la. non Lirou Diane maag moom euh, ci combat Balla Gaye ak Modou Lo seenu ci Balla Gaye Modou Lo parce que Aziz Ndiaye ci muy ñi xam ne mooy sama patron moo ma ne talal koo bëgg a bëreel. léegi nag Lirou Diane bu dee bés bu rëy la te bés bu rëy dañ nag bu rëy daanu. te lii jàll <laughs> boobaa nag loolu moo tax jël ko ci bés bu rëy boobu parce que xam naa ne bés bu rëy boobu nag wu rëy ca war daanu quoi. Euh, euh, Lamine. ma xamal la ne nee na bis bu rëy. man du ma ak moom. du ma ak moom. du ma moom. daal. dama lay xamal benn affaire. man jomb naa tey boo man. am na loo xam ne man attanu numa ko sama ngor mayu ma ko man tamit. Balla di bëre may bëre ñu bokk même jour munu ma ko. su boobaa damay fàtte sama bos. d'accord waaye bisu Balla Gaye Balla Gaye di bëre. Sénégal képp xam na ni ma mel ci Balla Gaye Balla di bëre may bëre jour boobu. waaye sama lépp la. waa doomu nday Mawla man doomu nday Balla Gaye de la képp ku dégg waaye waaye moom mi dafa wax ñu mu tudd léegi moom mi wulli père ba moom mooy wax sunu papa ñëpp père ba ku baax la. xaar ma expliqué la ba sa nul ko sa papa ñëpp ndax kooku ñëpp lay jàppale amul mbëru parcelle amul mbëru père ba ñëpp lay jàppale man su ma ko su ma moo tax ma xam ko muy booy ñaa maga sekk moo tax ma xam ba père ba ku baax la ku am ko père ba ñëpp lay jàppale du mbëru parcelle ñëpp lay jàppale man père ba ñëpp lay jàppale sama combat am na combat ma doon bëree ndar barke rasula xaalis bëri la yëkkati jox ma ko damay bëree naaru sookaas ndar xaalis bëri la yëkkati Aziz Ndiaye mi muy wax Aziz suma doomu nday la Aziz Ndiaye suma xarit la ndax dégg naa am na fu mu toog di wax naan sa patron moo mën sama patron man kan mooy sama patron Dieye Sène d'accord Aziz Ndiaye suma xarit la Aziz Ndiaye du mu xewle lu du lu ma lu ma yëgul lu mu xewle man maa nga fa Aziz ba ma koy xam du tey moom ba may xam Aziz moom xamul Aziz. bàyyi oh. a dama dama ko ne ñoo la mën sama patron mënoon sa patron waaw Aziz Aziz ay doomu ndey lan ay fare Aziz magu Dieye la Aziz magam ma dama naan magam la dama la bu ma fonton mu wax ba pare may ko mu wax Adama ak ak Lirou Diane jour combat Modou Lo Balla Gaye numéro sax eh, xam nga aussi comme vraiment xam nga man boo ma xoolee nga xam ne man maa ngi fii man nag mosuma taxaw fenn di laaj mbër man dama nekk fii ñëw Sénégal à 2005 yow noobul nga di rampe di jël ay noobul lan bu wax ay noobul nga gis nga yow gis nga yow mi li ngay def waroo ko noonu déglu ma dafa naan waroo taxaw naan ko noobul nga fii ñëpp ay noobul lanu fii ñëpp ay noobul fii ku fi gëm sa bopp nekk noobul ku gëmul sa bopp doo nekk noobul ah yéen ñaar kan moo gën a nekk noobul la bàyyi ko mu fay voilà ok d'accord mais dama la bëgg a wax ni man kenn mosuma taxaw non li jaan noobul la de ok merci man man xëccoo ma dara man dama ñëw bu ma ñëwee fii 2005 laa ñëw fii sur bu ma ñëwee Dakar sur boobu laa lekk xaalisu lamb usti licence ar adressé bi nekk fii ba suma papa Gaston maa ngi nuyu spécial ndax bu ma demee di bëree ba équipe nationale hôtel Méridien da lekk ci suma ñaar loxo mook ministre des sports Bakar mu ne booy bii nag deween yéen waa équipe nationale nangu naa ko ci seen loxo Aliou Sarr ne ko yow da nga bëgg lu yomb de lu ñu togg ba mu ñor rek nga jël ko ci la ma jël dugal ma ci kalaf yàlla dogal ma amoon ci sok yàlla dogal jàmm bi ak pexem ma toog at bëriwu ma mu muñal ma lool ma jël xaalisam gaañu it aussi contrat bi it xam ne loolu lay remplir mais mënoon a doxal ñàkk a yefu ngor di di ma attaque chaque jour pour ma mais defu ko defat déglu waa CNC waa CNC di ma déglu ba ma ñëw di bëre bu may bëree sax gaa lu ma sax lu mën a daan nit mais man sama ngor mu mu dugal ma neexul mu dugalaat ma sax neexul mais moom xam naa ne buy combat bu muy tëgg dina ma dugal xam naa loolu. non liiru jaan nag moom xam nga suma laaj mbor mais moom fan yàlla passé maa ngi déglu mu wax Adama Diouf comme xam naa ne nag. man maa ko wax. loo dégg rek maa ko wax. ndax moom moo ma laaj ci Adama Diouf. waaw moom nag moom nag wax man loo. man gis sama xamal la ma rafet. man mu toog mu ñàkk toog laa man lu ma lu mu dégg maa ko wax. lu mu dégg maa ko wax dégg la dégg la damay confirmer rek. waaw lu mu dégg maa ko wax. damay confirmer comme xam naa ne nag gars yi ñemewuñ ma kaay ñemewuñ ma. waaw yow yaay kan ba kaay ñemewul la yow yaay kan ba kaay ñemewul la. dinaa la jàpp nag ci combat Modou Lo ak Balla Gaye defaral la bagage yoo xam ne waaw yow doo defal kenn bagage yow da ngaa mën a defaral kenn bagage. yow bi la euh, kii jàppee euh, nu tudd Malick Niang dóor la nga xam ba léegi. waaw loolu dëgg la loolu dëgg la sax loolu dëgg la bëri dóor bi dem ci bëri simple. waaw dëgg la yow mënoo defal kenn bagage yow. non dem ba fekk sax ci bëri simple. waaw waaw man duma lambaatu boo ma gisee nga xam ne du ma du de xoolal nga daanu <laughs> waaw baax dama dama lay dóor a dóor a wax ji rek man nag naru woon bu rek moom mais comme dafay rëy la min te mag la dama ko yow du ma yéen ma kii boobu ba léegi kañ la kañ la Bamba Mbacke yow ban année nga ban année nga. bul waat am. yow ban. bul waat am. sama diggante 35 ans am. man de naa 1900 man maa gis nga xam nga bi bu ma ñëwee adressé ngoon ba Dakar fii bëriwu ma sumay morom ak suma diggante ak yàlla suma trahi ba mel dama ñëw fi ñu naan booy bu di teb boobu sew bi di tëb mayit bu ñoom mool o ñoom maam kon miliyaat ñoom Ousmane Diouf ñoo xam ne ñoo gis nga man ak Mamadou Ndiaye ni nga gis nii bëre simple dafa miti boo ci nekkee doo doo am nooy programme wu. bëre simple a dem ci bëre simple yow tappan nga ragal nga ragal nga tapp li ma la fi dóor nga daal waaw ragal nga tappan nga benn yoon ragal nga. waaw d' accord ragal nga maa ko wax xapat nga. Eh, ah d' accord xam nga luy problème bi xam nga luy problème bi. dara ci télévision ci télévision laay waxee. télévision la nekk lu mu mënta loolu wax doo wax ci waxu combat bi comme yow da ngay taamu combat bi bàyyil comédien bi. combat combat bi comme sama papa jox ma beneen mbër sax kii la ma a jox gis nga sa glace bi ngay naan ba bi def nii nga sa biir bi est ce que jóg nga taxaw xoolal sa bopp dama jógal tuuti rek dama nga jóg nga xool sa yaram bi nga xool ma. loolu nga koy yaay kan yow dama la may kan waaw. ni nga xamee may kan nag boo tàggatoo waaw yow yaay kan yow doo dara yow. waaw d'accord naa d'accord sa lamine la léegi loo may taamu nag léegi. ma la man ah, wax ne li ma dëgg yàq wax. yow yaa ma laaj sama combat ak Adama Diouf waaw damay laaj yow yaa ma laaj sama combat ak Adama Diouf waaye man taamu ma ko. waaw Adama moo doo ndeyu Modou Lo. Oh, non Balla Gaye sax boo gisee ma miin ko laay njomboor bu ñu nekk équipe nationale man Balla Gaye suma rakk la suma doomu ndey la Balla Gaye suma rakk la suma doomu ndey la suma doomu ndey la foofu ma fekk ren dem naa CNC mu yor benn njaxasu caaya dafa ñëw rek songu ma xam nga kafak man man aw ma aw ma man eh, man aw ma ku may moytu aw ma day wax day wax mbaru askan bi mais moom du mbaru askan bi xam nga fi nga toog fi gis nga yow sa biir bi bàyyi leen fi glace yi ngeen di naan di entraîner di contact xam nga yow da nga xam nga yow da danga bëgg lu yóbbu xam nga lan nga bëgg déglu ma rek xam nga lan nga bëgg ah, déglu ma dama lay wax tuuti lekk ay ginaar damay lekk ma damay dund man ak yow bokkuñu man damay dund de gis nga Kumba euh, déglu ma Kumba euh, Jéy jabaru Jéy ah. Kumba Sadi chaque jour laa la wax ni chaque jour ay ginaar la may defal. waaw bi ma yow ba ma yow lan fan laa la wuyu fan laa la wuyu. yow ah, fan laa la wuyu xam nga ci dara yow. loolu moom maa ko ah, seede yow bu ma la woon xam naa ci dara ah. ak. bay laa jënd dugal ko ci frigo sama diggante ak yàlla maak suñu production sama diggante ak yàlla. ñaata fan nga koy lekk béy bi. non damay xel di mos sax yàpp ji moom guddi gi da ngay mos tuuti rek. man dama ciy ndekki moom. da ngay mos tuuti rek guddi gi. da ngay da nga koy teel a lekk nag mais kii nii daa bëggoon mu jóg xool xool yaram bi ak suma yaram bi. xool ko xool ko xool ko xool ko non bul ngeen bul ngeen taxawal xoolal sa xoolal sa xoolal sa yaram bi xoolal ni mu liise xoolal xoolal xoolal sa yaram bi xoolal xoolal sa sa yaram bi gis nga barke Sëñ Tuubaa Mbakke boo def la gis combat bi du du man xam lu may wax man su ma bëree yow teel a egg tere dama lay bëral sama diggante damay xeex ak yow sama diggante la la wax dama lay bëraloo ba nga tëdd man damay xeex ak yow n'est-ce pas yow yaa ngi may filmer sax ci lamb yi yow laa xam ñaata combat lay bëre ay sept combat mais sa waay Lac de Guiers laa ko fekk muy contact kan noonoo non Lac de Guiers mbër la mais kooku ay contact ku la ñii ah. entraîné wuñu xam nga lu ñu nekkee dem salle pour tuuti rek ñëwaat. man du ma def musculation Adama kii ma def musculation. bo waat naa ko man du ma def musculation ni xam naa man du ma def musculation Adama Diouf man laa du def musculation. man nag man nag dëgg dëgg yàlla neex ma la wax dëgg te yàlla ñi ma war a boreel xam nañ ko ñu bëri ñu ngi ñu ñaa ngi leen di gis ci ma ci de lu ma def defuñu moitié bi arène arène ñaata combat arène arène sept combat la am. ñaata victoire. benn victoire laa ci am. yow yow yow. man am naa dix huit combats. ñaata victoire. Euh, douze. six défaite. daan. man Xaadim Gajaga daan na ma Naar Sogaas daan na ma euh, ak kan. Ibou Boy Rëbës daan. na la. Ah. seen premier combat nu mu premier camp daara jolof la woon daf maa liggéey ba ma yàqu daanu ma yow gis na laa ma joon ñu ma daanu ma nu ma daane daf maa daan deuxième combat ngeen deuxième combat ndeka liggéey bu ma liggéeyoon daara moo des fii sama baaraam dam xoolal comme non non dëgg xoolal wuy ma am na yoo xam ne jotul wax man Xaadim Njaay may bëre man man man Lamine man man benn loxo laa man sama defet yi ma na la wala daanu la daanu ma xam benn affaire laa yor li nga defet li ma am eh, eh, eh, Sénégalais yi sax xam nañu lu defet euh, ndax dama dama jot avance su gasto mardi mercredi ma def accident ma def nekk hôpital lu yàgg si ñag moom contrat il faut ma remplir contrat yooyu bu may bëri foofu sax xam nañ ne saa bu fekkoon te neew laa du bu ma duggee stade di bëri du ma dugg si rek ñëpp fàtte sax ñeneen yi yow xam nga loolu fi nga toog fii di man. ñooñu ga ñi ñi ma àndal ñi xam nañ ne sax nekku doon nekk nekkutoo non du du luñ ma àndal sax ñoo ñooñu kii défendre ma sax kii boobu ba léegi waxul gis nga ndox bu sedd bii sama diggante kele boo ko bàyyoon barke Rasulullah dinaa ko bëre man soxlaatuma beneen bor de soo papa Gaston laa bëgg mu tëgg combat bi ma jàpp ko sama du ko gaaw a daan de affaire yambar yooyu du ko def de naa ko eh, bëre la ba mu tëddal. yàlla man dama lay Adama kii xaaral ma man dama lay dóor ba nga tëdd. yaa ngi rey la mi nekk garab di wax rek. Eh, wóor na yàlla dama lay xamal nga euh, sama combat Xaadim Ndiaye boobu ngay lim ngay tudd dafa am waay bu ñuy wax Basirou Sow te mu dëkk caaro yi daf maa woo bu ma ñëw mu may ma terrain may Xaadim Ndiaye terrain comprendre nga ndax ne ñun ñaar sunu combat du ci doyal xam nga loolu tey jii loolu am na lu ko indi xam lan moo ko waral est-ce que sama combat Xaadim Ndiaye moo ko waral. mais bi moo gën a neex. Ah, dama waa d'accord non dama lay expliquer laa li ma am ci combat boobu. kër gi ma ci may laa lay wax terrain bi ma ci may laa lay wax te Basiirou Sow waajooju moom koy gërëm di ko san li mu bëgg yàlla ko yàlla may kan non na bàyyi jàpp ko dóor ko ba mu bëgg a régler ba noppi su ma ko dóoree ba mu bëgg a régler. yow Jamaïcain yow sa combat ak wuli sa combat ak Big Pato na nga ni war a taxawoo mbaru policier ngay bëri. sama combat ak taxaw na Jamaïcain moo ko teg mu ngi nii ma koy gërëm. waxum ñu gërëm. teer ba non Big moom lay bëri taxaw na ab policier do Euh, xam nga maa fi am man maay am lu kenn amul ci Sénégal jàppa Tolisso di ko dóor dóoru miti di ko wuli man man kese koo koy am parce que Tolisso moom boo ko dóoree ñëpp la dikk te kii moom li nga ma naa ko wuli. waaye li ngay wax ne soo ko bàyyil dootoo wuli kenn. lan la wax man damaa tiit ci euh, sortem bii passé li mu taxaw ne moom xaw ma lan la def yàlla doomu aadama lu muy waxee lool yow santal yàlla. da war a sant yàlla bi su xëyee yeewu teg sa tànk rek dox da ngaa war a sant yàlla waaye war non dafal ndànk man non non man gis na man man lu su ma daanoon vingt fois te man sant yàlla ndax man damaa def jaar ci accident ànd ak ay nit ñu ñàkk seen bakkan man lu ma am damay sant yàlla waaye moom taxaw naan man xaw ma lan laa def yàlla ndax yàlla ah warta faral ay xale yu ndaw la ilaha illallah man bi ma xel damaa tiit ba ma ko dégloo su ma yaram dafa la yar non dama tiit ndax amul tax man damay xool tey ji man ña ma àndaloon tey ñu ñàkk seen bakkan yàlla na yàlla xaare àjjana ku ci mel ni Alioune Seye Mama Ba Père Gora Seck seex Mbeng Cheikh Seye comprendre juróomi nit ñooñu ñàkk seen bakkan te yoonu ndar boobu la benn dëkk bu ñuy wax raw comprendre nga tey ji ñu dem ñu assuré man ak mam ma ñoo bokkoon benn ban mu dee sur le coup comprendre man lu ma am damay sant yàlla man waa dafa ndànk man lu ma munta am damay sant yàlla gis nga nit ki jaam da ngay sant yàlla ñun ay doomu aadama lan ay jullit lanu lu la yàlla may jëlal xam nga loolu mooy sa wërsëg waaye ah man ah yàlla xuma lan laa ko def ah man de maa ngi julli maa ngi woor ah li ma war a def maa ngi koy def ah ba pare muy faral ay xale yu ndaw di ma bàyyi santal yàlla santal yàlla ndax yàlla lu mu la jox nangul soo xëy teg sa tànk suuf da ngaa war a sant yàlla ah, xam nga li Lirou Diane comme comédien aussi xëy na dafa bëgg. booy man dama lay wax man du ma sa morom man du ma sa da ngay waxal da ngaa bëgg non dafa soxor non du jaan dama déglu aussi non il faut dama la soxore dama soxore déglu boobu ma la déglu ah. man la faale lu xam nga dama def vidéo mu am bës mu eh, eh, eh. mu bëgg a parto ci kii bës man moom Lamine moom bokkuma ak moom man bu ma daanoo comprends nga bokkuma ak yow mii naan ay du ma liggéey ak sëñ ma daanaka si man ken daanoo ma ku ñëw dama déglu déglu ma man bokkuma ak yow di daanu yow yaa ngi ni Xaadim Njaay dalaa mën daan nga damaa liggéey dalaa mën daan la man nag non dama déglu man waaw dama déglu waaw non lii daal xam nga dañuy lii mooy sport man ma taxaw ne moo man Lamine ak noo mënta toll lijjanti wu ma la dama lay xamal benn affaire rek bu lax man man mënu ma man du ma daanoo waaw dama lay wax rek santal yàlla laa da ngay sant yàlla yaa ko mën xam nga léegi ah mu ngi waat ne xarit Ndiaye di ko liggéey man dama wax solennellement man julit laa damaa gëm yàlla lu am lu am yàlla moo ko dogal moo tax bi ma daanoo man ne yàlla yàlla la quoi parce que man duma ma fi tise di tappay ñu mën ma fuuf daan ma nga damaa liggéey ak sama loxo dafa dam man saa yi ma daanoo dama yàlla la parce que tey bu neexoon yàlla la léegi mu réew ma fii ma toog man maa ngi julli li nga man maa ngi ngi def li ma def man saa yu daanoo yàlla lay sant bokk ma yow mi nga xam ne boo daanoo di comédien naan day maa liggéey ak man kenn liggéeyu big pato bi may doo a dakaar Dakar benn police daf ma doon doonu miti yàgg na de mu miti ma ba léegi boobu ba léegi nag aw ma occasion jara wàcc kenn mais moom bu dee police la nu jox ma ko dinaa ko wuli wuli yañ ma wuli woon boobee ak wuli yi ma wuli woon yii yëpp dinaa ko wuli big pato yaakaar nga ne. yaakaar nga ne di nga suqali ci big pato. ci big pato yaakaar naa ne dinaa si suqaleku parce que bi na daanoo Lamine taxaw ci télé bi xamal leen ne yàlla mooy ànd ak ay xale noo may ndam te yàlla dëgg na ma am na kilifa yu bëree baree baree bëri bëri yu ma woo na na na ma biyoon booy bëree dinaa la ñaanal man julit laa yàlla laa gëm lu am lu ne dañ ne yàlla ku dee dina yàllaa ko rëy kon man suma ma daanoo dama yàlla moom ma daane du ma ne kenn damaa liggéey du du ma dañu maa jaay dama gëm suñu borom di julit di julit di woor di sak sara kon bu ma daanoo damay gëm ne yàlla moo daane moo tax bi yoon may ñaan yàlla mu ànd man ma am ndam ci big pato parce que bu ko neexee bu ko neexee ma am ndam na ko neex ma am ndam am na benn promoteur nag bu fi ñëw jamaïcain jam production moo tax moo moo tëggoon sa combat ak parisien moo tëggoon combat Baye Mandione ak Goro Sok Jamaïcain maa ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay fay. combat Big Pato dafa taxaw. waaw Big Pato Wouly taxaw na comme ni la ko Wouly waxee rek avant tout dañuy sant yàlla di Seydina Mohamed di sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim di leen di nuyu bu baax a baax a baax yéen waa di TV di rafetlu jotaay bi ñu fekk fii nag émission bi am na solo trop. Big Pato wulli dañ tëggoon wulli Saint-Louis mook parisien combat bi bi ñu fa jógee gis nga wulli bës bi mu def. àdduna bi yëpp di ko coow wulli wulli wulli. Big Pato dëkk wulli ñëpp teg seen bët wulli na ma nag soxlawuma keneen ku dul Big Pato waaye gannaaw bi Big Pato ak wulli taxawee dama ñëw fii tey fekk am leneen lu ci rax muy lu am solo ma fekk fi sama grand liiru Diane ak aadama Diouf. léegi nag ñoom ñaar ñi ñu may dégg wulli ak Big Pato taxaw na dama ko bëgg a def tournoi boo xam ne Ligue des champions laa koy tuddee ah. waaw Adama Diouf a ngi nii Lirou ngi suñu bëggee moom ak Adama ma jox leen avance ñu def ko tournoi boo xam ne day dekkilaat làmb yëngalaat làmb ndax ñeenti ñi ku leen teg ci palaato lépp loo namu ca làmb di ko am bu ñu tuusee mu neex bu ñu signature mu neex bu ñu bëree mu neex. Adama loo xalaat ci loolu. tournoi boobu loolu nag ñoom na des. non man wax Sénégal fii. kenn mësuma taxaw ma ñëw di laaj mbër gis nga ku jarul mooy taxaw di laaj ne dama bëgg a bëre yow ñaata yoon nga may reporté leen may daan 64 litres may daan ba yóbbu tournoi bi suma kër. maa ngi koy fàttaliku Mbour. fii nii ak feneen ak feneen. Ah, eh, waaw mais loolu par exemple la waay loolu par exemple la par exemple ak bëre doon bokkul waay. par exemple ak bëre doon bokkul waay. bul yàq émission bi quoi. xuma émission par exemple ak bëre doon bokkul. kon kon nga wax. par exemple ak bëre doon bokkul. lii bëre dama la bëgg a xamal dama la bëgg a xamal xam nga man. ay dañuy waxtaan rek wax de gis nga kii. <laughs> kii nii du ma moromam. sama digganteeg yàlla kii nii yéen a ngi xam ne maa ko mën fuuf. non non non non kii nii kii nii dépense lay wut. waa waa jërëjëf waa yow de wutoo dépense lay wut. yow tu ma yow de sama digganteeg yàlla kii xam nga ne bu kii boo ko xoolee. na taxaw ma taxaw nga. xool yow yow yow yow yow yaay kan yow. xool yaramam bi waaw damay laaj yow yaay kan yow. gis nga ma la jàppee. dinaa la dinaa la borom ba nga xool yow. wax ma la jàppee ma la jàppee sa biir sa biir sa biir bu nga demee. sama digganteeg ma ko jàppee kii. du ma ko du ma ko gaaw a daal ko Adama man damay liggéey boore man tam damay liggéey de indi fii boore moo ma indi fii. wuli pare na wuli man man pare naa damay liggéey parce que ku ma fay ku ma fay lu ko jar ah. ma jàpp kii defaral ko bagage yoo xam quatre personnes la bëgg nee na bu ngeen nangoo mu jox leen avance suba. saa waay déggoo ma la ma la wax kay na man booy dama ko jàpp. man booy yow booy man ma wul yow booy. waaw ça va baax na xëy na non booy gis nga non non xam nga sax sax non dafa ndaay dama lay sëgg non non non affaire yabaate dafa bëgg a si émission bi ah. ndax booy bi su taxee naan dama laa wuli ba ma nooy bu affaire moo bëgg a dugg si euh, émission waaye yow yaa mën kii. dara wul bëgg a lekk. waaw yow yaa mën Adama ah, kii yow yaa ko sama diggante ma doon teg ci buli laay teg buli. boo yàgg buli dinaa duma ba nga normal. yow mii moom du ma wax ak yow ndax wéeroo. waaw yow wéeroo yow. waaw d' accord yow wéeroo balaa am Malick Niang dóore ba léegi. wéeroo da nga am problème bu bopp yow. yow da nga am problème bopp. waaw ku la Malick Niang dóore ba léegi da nga am problème bopp yow. waaw da nga am problème bopp yow wéeroo. waxuma loolu yow wéeroo ku la war a dévorer di gagné. yow wéeroo bii laa wéeroo. non wéeroo li tax nga daw bëre dóor bi da nga ko bëre sample ba. Ah, xam nga waaw da ngaa daw da ngaa daw da ngaa daw. xamoo li nga wax man ci bëre sample ba ci bëre ba ñu yóbbu ma équipe nationale. wuy ma yàlla waxal. Sénégal yéen daal leen teewal di gagné ay médailles mosuma am médaille dafa am lu mu wax mais loolu dafa ne dafa bëgg tournoi amul problème mi si moom waaye ma xam moom li Jamaïcain wax d' accord mi ngi des si moom amul problème waaye ma xamal la benn affaire man dama am ay doomu nday yoo xam ne tey jii fu nekk lan may bëggee. yaa ngi xeexat di entraîné woo de. yaa ngi fontoon ginaar yi ma lekk lépp moo ma jàpp. ban ginaar yow lekk nga ci ginaar yow mais xoolal ma waaw yow dimbali mën naa naanu ma léegi ndox xool ko xool ko naanu ma léegi ndox alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin man ginaar yi ma jàpp man a yow bokkuñu man damay dund man damay dund man a yow bokkuñu man damay dund booy man damay dund man damay dund man a yow bokkuñu yow a eh, arrête waay a bu ma yëngal waay booy bu ma tàngaloo booy bu ma tàngaloo waay non pare naa je suis paré pour la amul problème ndax kii làmmiñam moo rëy. bi Pato mi ngi ci tournoi bi. waaw waaw sama fou. ku ci nekk ci tournoi ñoo xam ñoom ñëpp sama sa waaw dañoo mais respect. te ñooñu dañuy joxe te ndax ñoom eh, booy xoolal Adama Diouf man waxuma yow mënuma dimbale yow. danaa wax yow yow yaa topp fii yow yaa topp fii di rëy lammi. waaw man waxuma yow waaw damaa rëy lammi su boobaa waaw déglu ma sama rëy lammi bi dama wax du ma wax ak yow mu nekk nii. waaye xoolal dama bëri ma yow laa bëgg a jàpp. doo dara yow doo dara. da nga tuub de ah billahi waxoo dëgg. da nga tuub de waxoo dëgg c'est pas vrai waxoo dëgg laa wax nii. <laughs> waxoo ah, dëgg wuyu ma dama am sumay. waaw da nga ñëw ci ñoom. Balla Gaye Modou Lo

man nag yow man lu ma yow waaye xoolal dimbali ma waaye nga am su ma jàpp waaye jógal fi waaye yow da ngaa wér yow dimbali ma ma waaye a tuuti man lijjanti la waaye jógal fi waaye yow bu ma dàmm la waaye yow yaa xanaa yow da ngay nappaate yow jën nga bu ñu lay napp sama nga gis man cere ak meew laa lekk de man ay ginaar laay lekk <laughs> man ay ginaar laay lekk man non ginaar moom ginaar moom man maa ko moom bu ñu suma kii man la ñu woowee bàyyi ginaar ci kii bi ci ligtii fi Anta Thiaw ak soxna ginaar yu noonu boo ko buggee fa ngay dem Mbayang Fall Angel Fall boo buggee mbaxalu yàpp mu nooy nepp fa nga koy lekk jee maa ngi nii maa ngi nuyu nag suma benn tubaab boo xam ne dafa jóge woon France gisoon sumay affaire ñëw seet si ma semaine bi passé ñu ko wax Tina Panter dafa jóge France dagg avion ñëw ba fii toog ak man pour gis ma kese maa ngi koy gërëm di ko nuyu di Moustapha nga xam ne moo tax ma xam moo tax ma xamante ak moom xam naa comment bu paree sax bëgg naa ko. comment foo ko préparé wul. man yow soo ma jàppee doo jàpp yow dimbali ma waa yow. fooy waajale tournoi bi. Euh, tournoi may gërëm jamaïcain parce que boo demee ak tuuti yaay saa bi na Espagne ba mu defal ma invitation Espagne. Espagne laa jëm. Espagne laa jëm dinaa dem France wala ma dem États-Unis bu ñu fa tase de man France laa bëgg a dem. yow maa doy foofu dama fay dem. man du ma doy ma récupéré tuuti rek ndax li ma fournir dafa bëri. man États-Unis laa jëm. non non bàyyi ma dem wala ma dem sama doomu nday alam ndaa ak as Espagne. sama doomu nday alam ndaa kooku suma doomu nday la ndax fu mu nekk combat bu mu bëri ci moom a yóbbu ndeysaan maa ngi koy nuyu ak doomu ndayam as waaw at at at attention sama basketteur bi Youssou Ndoye États-Unis waaw sama xarit la c'est mon ami nu mu nekk waaw Youssou Ndoye sama xarit la Youssou Ndoye man tam sama xarit la di man Youssou Ndoye États-Unis lay nekk fii ma koy dégg Youssou Ndoye sama xarit la yow moom man ak moom dañoo bokk ay xarit ci benn côté booy bi moo tax sama bëri moom il faut ma seetaat ko ndax non non non xam nga lu tax xaaral ma arrête sa waay arrête man Aziz Ndiaye wax mooy patron Aziz suma xarit la man suma doomu ndey la Aziz Ndiaye man ak moom tey boole jéy waa jéy sama patron waa jéy sama xarit waa jéy d'accord ndax ma ñëw ma lay jox pomme ak i ginaar ok waaw Kumba kooku man moo may jox suma na ko lu ne man ma xamee père ba Maguette Seck moo tax booy ñaa ab jamaïcain su ma xamee père ba dama euh, Maguette Seck suma rakk moo tax ndax paa bi da ko jël doomoo ko di ko defal lu ne comprendre nga booy bi ne euh, mu ne toog ak moom mu ne ko man liiru jaan vraiment man daf maa neex mu ne ko sama mag la barki Serigne Saliou Mbacké paa bi di ma yónnee xaalis di wax ak comprendre nga affaire boo xam dama neex moo tax ku baax la ñun làmbu famille lanu ñun ñëpp benn lan man tey jii parcelle gee ñu nekk parcelle gi mu dëkk ñu euh, kii Garga Mbossé Garga Mbossé sama booy la daf maa bëgg sama booy la. di sant ñëpp. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waa Géejawaay ñëpp maa ngi leen di gërëm di sant képp kuy mbër dëkk Géejawaay maa ngi lay gërëm di gërëm sama doomu nday sama xarit sama lépp muy jéey production journée bii mu ñëw moom moo war a tëj làmb ji yàlla defal ko journée bi ala dawme fees dell di gërëm sama doomu nday Modou Mbacke baax yaay Couture comprendre nga di gërëm waa France ah. ñëpp ba non non non du question Youssou Ndoye sama waay la sama joueur sama joueur bi rek bàyyi laat laat. maa ngi koy gërëm di ko sant ñëpp maa léegi ak sama monsieur a maire maire de la ville de Guédiawaye maa ngi waaj a def sa lu rëy Guédiawaye maa ngi koy waaj a def tu Aliou Sall moo ko moom monsieur le maire maire de la ville ndax daf ku ñëw Guédiawaye xam ne Guédiawaye soppeeku na ndax Aliou Sall ak sunu maire bëy di bëy di ba bëy ba at bëy di sëy ñoom ñëpp ñoo leen gërëm waa Guédiawaye ñëpp bàyyi at Fuuta suma doom ndey. waa Guédiawaye yëpp mën nañoo jàpp ni bokk nga ci tournoi. non amul problème suñu pare amul pour toujours amu problème man nag su ma liggéeyee champion su ma tubaab su ma duggee xam kan moo tax du kenn ku la Adama Diouf looy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñu jàppale di nuyu suñu maire Pape Madiop di yàlla na génne fu mu nekk di nuyu président Macky Sall bi nga xam ne ñoo bokk fu ñu dëkk Fatick Polga di nuyu Adama Ndour di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu ki ma àndal nii ñu nuyu Abdoulaye Diop spécial suma production di nuyu góorgóorlu production bi doon tëgg dimanche gi nga lamb dimanche bi nu mu fees. gëj ngaa bëre ci simple bi de lu tax. dinaa bëre nag eh, maa ngi bi ma mujjee bëre mooy bi ma mujjee jël adressé ngoon gis nga nu mu feese woon ponkal yëpp ma jàppale gis nga ni ma leen def ku ma ci def nga rek wu ba ma jël lambu ja kii suma doomu ndey ñoo bokk rek Serigne la Serigne la tudd suma doomu ndey la maa ngi koy nuyu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu Birane Padisen di nuyu Adama Ndour di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn bu ma limee damay juum di nuyu waa suma dëkk suma dëkk Fatick ma kenn suma mag ngoor ak ñëpp di nuyu sumay jabar tuuti faatu di nuyu amisaar di nuyu waa suñu dëkk non man mën naa am ñeenti jabar sax mais ñun suñ ñun ñu ñun yaree ci séeréer say jabaru mag yëpp say jabar lañu ñëpp da nga leen di jabaroo maa ngi nuyu suñu waa kër këru famille la suma jabar yëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant. di wax ci émission bi seen affiche. émission bi seen affiche émission bu am solo la gis nga télé bi gars yi dañu war di fay sax télé bi. ndax léeg-léeg lambu am stade ñu def ko adrecté doo mën a seetaan mais lambu ji dangay dem fu la neex ba ñëw nga teg say ginaar yi nooy jàpp ci doog a tapé luttetv point com di seetaan. da ngaa xam ginaar nag loolu moo neex. ginaar dama ko xam-xam fi ma koy téye kii nii lekkul ginaar day soob biir buy lekk ginaar nii lay mel xoolal suma biir bi day entraîné ba taxaw mais xool xool xoolal bul ngeen daal wax taxawal taxawal liiru xool ko gis nga gis nga boo def la. yow ginaar nga aññe. ah waaw ginaar nga aññe. waaw ginaar nga aññe mais Lutte TV ñoo togg ginaar moo tax xaw nga sa bopp. morso bu ñëw nga ngi jëriñ ñëpp di nuyu liiru jaan aussi lu ñu wax fii yëpp kenn dépassé wul kenn waaw kenn dépassé wul kenn ki li nga war rek ngay def di gërëm promoteur bi ja Jamieke di la gërëm yow wuli di gërëm Lamine di gërëm suma doomu ndey Euh, Mohamed di gërëm ñëpp di sant ñëpp lii nii lu baax la amuñ seen fay Lutte TV point com yàlla mu nekk tele bu nga ne te xam naa ndax ñëpp a ko bëgg gis nga boo moytul benn affaire ñëpp bëgg ko te Lutte TV ñëpp a ko bugg yàlla rek moo tax may wax ñëpp a ko bugg te yàlla tax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bàyyuma kenn waaw merci beaucoup jërëjëf may tàggatoo maa ngi dégg gaay na ginaar ginaar ñoom ñoo bëgg ginaar mais mais man la ma xam nga bëgg ginaar ginaar bëgg la ma wageen man ginaar moo ma bëgg moo tax man li ma ginaar ñoom duñu ko lekk ginaar may sant booy sama booy la lamin sa patron ak ñi fi nekk ñi liggéey Lutte TV ñëpp. ah Boos Faye. Boos mooy kii Boos benn affaire la Boos maa ngi koy gërëm Boos Faye di gërëm sama patron Aziz Ndiaye rakam Baye Ndiaye Matata Ali Ndiaye maa ngi koy gërëm Jibril Thiaw meeru Refane maa ngi koy gërëm Bay Boos Kër Massar mi jaay prêt à porter bay boos bay boos rek jox li nga ma mën a jox li sol maa ngi koy gërëm di gërëm Dame Ngor di gërëm ab Tine gars yi yëpp maa ngi di gërëm kulum parce que man aussi Adama ak Lirou ñu ngi xëccoo bëru askan wi mais mais man maay le lutteur de VIP waaw VIP yëpp maay seen mbër ay Wally Seck ASC bi yëpp may seen mbër man maay lutteur de VIP jamaïcain moom vraiment dama koy gërëm parce Euh, nekkoon naa position boo xam ne moo ma gën a combat bi li tax ma wax ci li ma wax sax mooy kii ma bëreet nii moom mu ma ne tanal koo bëgg a ma ma dem tan booy bu ndaw mu daan ma bébé ndar laa wax waaw moom wax tanal ko bëgg a bëreel bi aussi li ma wax mooy big pato la ma waxoon jox na ma avance tournoi bi moom pare naa pour wuli ñoom ñëpp man maa ko bëgg jël waaw parce que mer bi ma mer ah bi yoon moom yàlla dina ànd ak man ma wuli ñëpp may wax yàlla nag ngir yàlla na ma yërëm julit laa moom laa yaakaar yàlla yow laay waxal yërëm ma liu jaan mi bari na wax to Adama nag daa mel sa waay la Adama sa waay la bëgg ma la nga baal ma gis tournoi bi bu ma ciy dugg ciy dugg bi taxuma ciy dugg kii topp di wax te tojul fu mu la ki ne kii nii sama diggante boo ko booyee dinaa leen may si victoire yéen yëpp kii nii boo ko jàppee dama lay xoolal dañu ko wax tàggoo de dama lay bëreloo ba nga tëdd sama diggante waxoo dëgg waaw baax na waxoo dëgg waaw waxal loo neex rek feetal wax ji rek yow ah xanaa baax na gërëm nag parce que ma jàpp la kii non booy bu baax la parce que Seydina Mohamed booy ndaw nga ñu ngi lay ñaanal ci kaw ci kanam vraiment ok. jërëjëf jërëjëf jam looy tàggatoo waaw li ñu tàggatoo mooy nañ leen sant baax a baax a baax. père ba maa koy gërëm. di di père ba sunu papa la ñun ñëpp père ba yow doomu moomoo ko père ba ba ñu defal ay teraanga boobu xamuñu la dimbale man père ba maa ngi sekk moo tax ma am suma rek. suma xarit waa Seras aussi maa ngi. waa Seras waa Seras maa ngi nuyu ñoom jaga ak ñoom gars yëpp samay baay fa nekk samay nijaay. Seras boo fa demee da ngay jënd yàpp waxal sa diggante yàlla barki Sëriñ Bamba Seras soo doon jënd Fuuta nga fa. Fuuta. Ah, ok baax Fuuta xamoo ko borom kosam man a Seras man Seras soo dee du ma jënd yàpp bàyyil woyaan gi nag. waaw yaa ma dàq woyaan téeméeri yoon yi dimbali ma bi yàpp dañ koy jënd yàpp dafa seer bàyyi woyaan gi bu nga lu yomb torop dañ sant yàlla jël Seydina Mohamed baax di nuyu gaa yëpp di rafetlu jotaay bi xam nga yéen waa TV yéen a ngi innové ndax seen affiche bii ngeen def tey yal na dem ci fu kawe seen jort te lii dañ bëgg ngeen koy continuer ndax làmb da ngeen fi ñëw di bay seen waar bi ngeen ñëwee ci làmb ba tey yéen a ngi yokk tey làmb bu ngeen ko fekkoon 100 yóbbu ngeen ko 200 pour cent kon yéen kenn du yéen maa leen di ziar di nuyu seen patron Beuz di nuyu di nuyu Babacar Soda Mohamed xam nga sama ndoom mi <laughs> Bukar di leen ñaanal jàmm baax a baax a baax li TV dem ba raw ci télé yi nekk ci réew mi yëpp te incha allahu rabi non combat bi nag dama bëgg combat bi Beuz dafa doy waar tournoi bii xam nga wulli big pato nga xam ne mbëru askan wi la bu jógee police yi jóg wulli nga xam ne jamono ji mooy moo yor bës bi ci àdduna bi. lii lu jant jógee waa Géejawaay jog Adama Diouf lii ku ko def tournoi xam nga desolo askan wi dara bu ñu signatiree mu neex bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex. tournoi bi nag Ligue des champions lañ koy tuddee incha allahu rabi bëgg mu nekk pay per view maa leen déggee ñëpp kii naan France la jëm kii naan Espagne la jëm kii naan Maroc. première face à face fan la. Canada lañ koy defee ci fi li TV soqee ko incha allahu rabi yéen ñëpp da ngeen dem Canada waaw. Lirou Diane day dem <laughs> Wuli day dem Adama Diouf day dem Big Pato day dem yaakaar naa Canada mu leen gënal ay France yi ngeen di wax nii yëpp. Canada di caaxaan yi tam. <laughs> Canada moom doy caaxaan moom. Canada bokkul. Canada première phase à phase bi. France moom maa fa bëgg dem nii rek suma gan bi rek laa bëgg a dem pour. Canada di vingt jours un mois rek dem rek ñëw laa bëgg dem Canada pour face a face. waaw baax na mais kii bi ma ko jàppee ak biiram bii. yow mënoo maa dimbali nga. yow eh, rek lii nag dañoo annonceurs yi ak sponsors yi. waaw yi ku bëgg jaay dara xam nga ne boo ko tegee si ñii dina jàpp ku bëgg say mbir dox ñëwal teg ko ci ñii. Eh. ñii ni ñuy neexal am na mbër yi fay ko ay cent cinquante millions. li ñoom wuleeg ñoom liiru jaan mii di def ak Big Pato ak Adama Diouf duñ ko def kon ku bëgg a jaay say mbir mu jàll ñëwal. dinañ la ko yombalal incha allah rabi ñu ànd liggéey toj réew mi déwén incha allah amateur yëpp lañ ñu xaar. Eh. non damay lancer sponsor yi. non loolu moom man dama koy wax. parce que kooku moom sama patron parce que tournoi TFP bi moom mooy épisode leader bi Aziz moom li ma ko wax solennellement nañ ñëw jàpp ci tournoi bi parce que Jamaïcain mu ngi may jàppale. ak émission bi. mu ngi may jàppale nañu jàppale ko émission bi aussi si seen Aziz Aziz diwlin gi ñëpp a koy jël di jàpp ci waa lutte. gis nga ma wuyu ma kooku jot a wax gis nga Aziz Ndiaye askan wi la fi nekkal te Aziz day dimbali nit ñi te yàlla tax Aziz ba muy jàppale nit ñi du tey man xam naa ci dara loolu du tey. boobu nekk nekkagul promoteur di jàppale ay doomu aadama kon lii kii Jamaïcain xale bu ndaw la nekk promoteur gars yi dañu war a ñëw après Aziz moom du la ko jàppale kooku jot ndax Aziz day def social Aziz day def social. waxatul loolu jéey production tamit dina ko jàppale suma patron suma xarit suma doomu ndey muy jéey production nañ ko ñaan ci kaw ci kanam ay suñu ñëwee suñu ñëwee ñoo xam maa ngi maa ngi gërëm Mamadou Touré damay baal ma maa ngi gërëm Mamadou suma doom la ak Sofi sumay doom lañ nit ku baax vraiment maa ngi koy gërëm di ko sant Ligue des champions noo ko Adama Diouf. Lirou Diane waaw balaa bàyyi ma sant rek julli ci yonante bi sant Sénégal ñëpp rawatina sama mbokk rawatina sama mbokku séeréer yi di leen gërëm encore ci journée bu ma jógee dimanche passé ndax bi dafa dem ba yéem ma di leen wax ne lii maa ko sax xëy na dama yëngu ci la li simple rek Lirou Diane bi bu mu yëg seen naa ko sa combat Adama Diouf daa war a mën a ne a mën ñuy wax loolu avant wax lii lii lu war a a nekk la. Eh, Adama Diouf nag ku ko xam-xam ne lamam moom cin buy baax buy la amul rox bu set kii itam der la li ma gis mu def yëpp yëfu der lay def wuli mu des bon sama mbokku promoteur bare lu mu bëgg a décorer sax xamu ko jàmm yi kee di ko nuyu au passage lu mu décorer bëgg a décorer sax xamu ko lii lamb du ko dàq Sénégal dina dina am promotion dina am wax bu neex. le combat yi ñoo koy dàq bon ñu ngi ñaan yàlla mébétam bi yal na ko yàlla yëgatee ay yëgale ak jàmm ñu bëri ko ci fair play que le meilleur maa ngi gërëm suma doom bu baax Mamadou Touré su yaayam kii yaayam suma doomu bëjal la mais ku baax la ku may jàppale la xam nga ku may jàppale daal bu baax a baax ak Aliou Touré ak Sofi Ndiaye maa ngi leen gërëm ak seen papa yëpp waaw di wax ne bu ñu demee ba mën a taxaw am fitu taxawal tournoi bi tournoi bi nga xam ne tournoi askan wi lay doon dafa am ku ko waral. koo xam ne sunu papa la nekk parcelle di dimbale sunu parcelle yëpp di ñu taxaw lépp lu ñu nekk mu taxawuñu si muy suñu papa père ba ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk lépp lu mu bëgg ci àdduna yàlla defal ko ko ndax mbër yeeg sax dañ koy xëccoo koo wax rek mu ne sama mbër la liiru jaan ak wulli yaa ngi dégg ku ci nekk a ngi wax te képp kuy doom kuy yëngu ci làmb boo toogoon fii loolu ngay wax ci moom kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu tamit suñu benn xarit boo xam daf ñuy taxaw muy xaadim Balla Gaye 2 ñu gën ko xam si borom Matlabul Fawzayni électronique ñu ngi koy jaar bu baax di ko nuyu di nuyu ay soxnaam yëpp di nuyu mbër yi nekk si Sénégal gi yëpp rawatina nag Modou Xarañ Lo ak Papa Sow ndax dama tëgg na ñu ñëw taxawu ma ak Yékini Junior Laay Pythagore Ibou Laay maa leen jaar baax a baax ak ñi ñuy ànd ak yëpp ku si mel ñoom Youssou Ndoye ñoom André xam nga gars yi ñu ngi koy xëccoo Youssou Ndoye maa ngi dégg liiru jànn ak wulli ne seen waay la Youssou Ndoye Youssou Ndoye Youssou Ndoye jam production la bokk ah, waaw waaw Youssou Ndoye mu ngi jam production maa ngi koy ziar baax a baax a baax di nuyu ñoom Modou ñoom Signor ak waa Saal bi yëpp ñoom Papis Diagane ñoom Ibulaay bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu Xaadim Balla bu baax a baax a baax aw ma fayam ndax mu ngi ñuy taxaw bu baax a baax a baax di wax ne Lamine lii nag waa Lutte TV la seen lamb la seen yëf la waaw tournoi bi seen loxo lañ ko teg yaa ma gën a xam soore di nuyu Mohamed Boucar jaay sama gaay seen affiche la woon ci luttetv.com man ak Babacar ñoo ko war di seq Babacar nag dafa seeti ñaareel bi teneng wujju teneng la dem seeti tey ma teewal ko fi xam naa beneen numéro bi man ak moom ñoo koy seqaat rek ci luttetv.com dañuy ñëw dal seen kaw eh way eh.